bismillah asalaamaaleykum nemmeeku nañu leen yéen ñu topp ko ci sunu chaîne YouTube bi di Xalam TV ginnaaw tukkib sunu njiitu réew lii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye foofee ci tugal wara na daje ak président bii di njiitul France di Emmanuel Macron ñu waroon a waxtaane lu jëm ci koom ak lamiso ak jëflante bi dox diggante France ak Sénégal am na ay biir yu yaatu yu fa xew ak ay tomb yu bari yooyu yaatal nañu ko fa lu nag ci biir loolu am ci lol dañu tiital nit ki mu tiitale ñu bari ñi nga xam ni ñoo ngi xam mbaa ñu am yenn information yu jëm ci ñennat ak yennat ci organisation yi à entreprise Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à cette campagne de mobilisation pour la souveraineté et l'innovation vaccinale dénommée Lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Front mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale bi nga xam ni moom la sunu njiitu réew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye teewe woon nekk na lool lu mat def taxaw seetlu la ak ay jàngat ndax saa su nekk askan wi dañuy war di xam seen njiitu réew li muy dox rawati nag bu fekkente ni mbir mi bu demee ba sotti ci ñoom la jëm si te da ci am nag ay jëm yoo xam ne sunu nguur gu bees gi war nañ di leen bàyyi xel bu baax a baax ndax njariñ du bawoo mukk ci ñoom jëm ci nit ku ñuul te ñooña mooy yenn ci fondation yi lu mel ni ci Gates Foundation Gavi ak yu ni mel ñooñu ñëpp suñu nekkul tey ci santé ca vaccin ya ñeen ca mbay ma ci OGM ya mbaa ñu nekkaat ci leneen muy lu mel ni ki planning familial planning yi wala lu mel ni avortement mbaa lépp rek luy tax nit ñi di nit ñi di dee nit ñi di feebar ñu ñëw ni dañ leen di indil ay solution yoo xam ni musiba li leen di yokk te ñi nga xam ni ñooy dox yëngutu yooyu mooy ku bon kii bu mag bii di When it comes to making the world a better place, uh, talented young people like yourself are the world's most important asset. And that's good news for Nigeria because it has one of the biggest young populations in the world. It's continuing to grow. And that represents, with the right investments, a lot of incredible skills and passion uh, to tackle these tough problems. askan wi nag lu ñu wóolu wóolu nguur gi du tere nag ñu war a bàyyi xel seen bopp ba nguur gi moom su réeree ana ñan ñooy ñii ñoom ñu xam ana naka la ñuy bu loolu ñëwee jéem ko bañal seen bopp te amuñu yaakaar ne xel dana deltu ginnaaw ba sunu nguur gu bees gi dem bay wóolu tuba bi di jëflante ñoom ci wàllu gu mel nii à 100 pour cent ñoom ñi nga xam ni seen pexe lépp mooy coloniser nooteel ak liggéeyal seytaane rawatina ak seen day di Bill loolu nag moo tax nun ñu di leen jotal li nga xam ni mooy danger bu jëmu di Bill ak ñu ñoñam. Je félicite vivement les organisateurs de cette rencontre Gavi l'Alliance mondiale pour le vaccin l'Union africaine à travers le centre de contrôle des vaccins CDC Africa et notre hôte, la France, pour leurs efforts au service de la santé. ginnaw bi nga xamé ni nak njiitu réew dem na fofé ci France ñu bari bari ci ñooñ Sénégal seen yitte ci mbir mi moy di waxtané lenn ci bir yu ñàkk yi solo ak di topp waxi ñenn ci opposant yi nga xamné duñu wax mukk lu amal réew mi njariñ mbaa ñu débat bi ci luy jariñ réew mi waaye dañuy ñëw ci ay amalgame di tukkal nit ñi ci ay débat yoo xam ni débat yu inutile la waaye duñu leen toog ñu wax ak ñoom li nga xam ni ci dëgg-dëgg mooy amal réew mi njariñ ci koom ci jàmm ak ci kaaraange nun nag bu nu waxee ni dafa am lu nu fi tiital mooy li nga xam ni ñiy gëstu lu bare bari jëm ci yenn ti personnage yu danger yi muy yenn ti jàmmi seytaane yi waaye ki ñu ci tudd mu gën leer mooy bandi bu mag bi mwen bilget, waj item, organizasyon, wala, kyr genyoutou de gavi, mwonek, ben nabara bok hamne, dey faral di ligye yen ki yes di jefondiko, mwen jem ti nit, nye wak niden yon kway def, mwen jem ti wale prewasyon, wale sak, wale karange, wale petal. Lol nank bunyo kwa khe, bunyo dege, ki bir lidi daba bi amoun, nye fi wak program vaksinal, saa bu ñu waxee vaccin rek xel war na dem ci li fi xewoon muy li ñu tuddee ñi nga xam ni ñoo ngi doon topp suñu vidéo yi ñu amaloon doon nañu dégg ci jamono jooju ñuy leeral ni ci jamonoy 2015 ci la bandi bu mag bii ñu tuddee Bill Gates waxoon ne wa àdduna bi dañu leen war a wàññi ndax dañu bari waaye fii ak jamono ji yàggatul dañu leen indil ak pétt muy li ñu tuddee bomb boo xam ne du nekk bomb buy tàkk di yàq ay immeuble wala ay suuf waaye day nekk pétu goo xam ne pétu ko ndundat lay nekk maanaam pétu biologie muy bombe biologique boo xam ne dina faat ay nangam million ci ay doomu aadama moom bandi bu mag boobu di Bill ba léegi mu wax ne àdduna bi dañoo bari ci dañu leen a war a wàññi ba ñu mat ay millions yu néew waaye itam yemu ca mu ni moom li mu gëm mooy ginnaaw bi ko yàlla maye alal dana jël alalam jooju mu financé ko bu baax a baax ci lépp lu man ngir li ñu tuddee biographie mondiale muy ñi dund ci àdduna bi ni ñu bare ñu mën a def ay jigo ngir wàññi leen ba ñu yam waaye ñuy xamle ni jëmmi wàññite googu ci fii ci Afrique lay tàmbalee ndax dañu gis ni Afrique ci boppam mu ëpp lu muy jur ci ay doomu aadama maanaam mu ëpp lu muy amal lu muy yokk ci aw nit te itam arax ca dolli muy li ñu tuddee wërum wërum ñaari tur nga xam ne dañu ko amal mu nekk benn moyen ngir mën a wàññi askan wi naka noonu planning familial yi nga xam dañu koy amal muy doom yi jigéen ñi naan ngir bañ di amal doom wala sax ñu di ko jaare feneen ak yi ñuy jëfandikoo ngir di yàq ëmb ak yi ni mel dañoo gis ni ni ñu koy jëfandikoo ci réew tubaab yi ak ni ñu ko fa daganale dëgganale ñu ko fii ci Afrique loolu tax na nag moom mu soobu ci lu jëm ci wàllu vaccination ba bu ñu fàttalikoo ay at yu néew ci jamono yi nguuru Macky Sall déggoon nañu fi ay vaccin ngir waajal tawat ji nga xam ni mooy cancer de col de l'utérus bu ñu waxoon ne dañu koy defal xale yi ba ñi nga xam ne ñooy kàngam yu mag yi di ñooñ xalaat TV amaloon nañ ci ab vidéo bu am solo waaye terewut ñu baree bari ci askan wi jëfandikoo woon nañu yooyale vaccin ngir xamuñu danger bi fu mu toll te itam xamuñu ni nguur gi fi nekkoon yéenewu leen dara jàmm waaye ci lor leen lu nekkoon maanaam intérêt personnel ak yitte leen ak intérêt jaami seytaane yi waaye nag la nga xam ni moo mattoon nguur googi fi jóge nguur gu yes gii bu ñu moytuwut dana leen xori te bu leen di xori day fekk muy lu wees maanaam muy nekk lu trop tard loolu moo tax vidéo bii ñu di ci def mbaa ñu di ci yaatal yaatal yi nga xam ne kii di Clédor seen defal na ci gëstu bu am solo wala yaatal gu am solo ñu gaaral leen ko au lieu ñu di leen dikkal ci yeneen firi fàcce yi ndax li mu ci indi dafa leer naññ waaye dañu leen bëggoon a xamal rek ki nga xam ni mooy Bill ngir sunu njiitu réew lii xam ne Bill du mas du mappandoo waaye du ku ñuy jëflanteel ci genn wàll ndax bokkuñu principe bokkuñu xalaat ndax bu dee ñi ci des mën nañu ñëw di ak yow bu ñu xamee ni mënuñu la lor ñu ak yow par rapport ak yow ni nga ak ñoom waaye bill gate mooy nit ko xam ni maanaam moo fi teewal iblis ci kaw suuf mooy ki nga xam ni lor dong la yor te yorul njariñ amul dara lu muy def ci àdduna lu may ni ca la muy def ci biir mbirum seytaaneñ ca te benn dong lay nekk muy xool naka lay def ngir wàññi nit ñi moo xam nag fu mu ko mën jaarale mooy ki nga xam ni mooy créer désordre ngir ñëw ni day indi ordre mooy kii créer ay maladie ngir ñëw ni day indi saafara ci biir saafara soosu mu def ci loo xam ni ci lay mañ jaar ngir gën a mën a faagagal nit ñi ngir gën leen mën a contrôler waaye nag fi àdduna toll ci mbirum vaccination mooy arme bi nga xam ne moom la jàmmi seetaane yi dese ngir man di contrôler le monde moo tax sunu nguur gi bees gi waaye sunu njiitu réew lii ñu war ci bàyyi xel bu baax mu war ci xel bu baax a moytu ci jëflante lu jëm ci yaram ak nga A century ago, around the same time Rotary was starting to grow into the global institution it is today, polio was one of the most feared diseases in the world. Today, we're close to ending it for good. The tough fact is, as long as polio exists anywhere, it's a threat to spread back everywhere. The world owes a debt of gratitude to the Rotarians healthcare workers and volunteers who've knocked on doors, set up clinics, and traveled across countries to make sure children are protected from this awful disease. We should all be incredibly proud of how far we've come. When polio is eradicated, and I do mean when, not if, it will be one of the biggest advances in public health in human history. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à cette campagne de mobilisation. pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, dénommé Lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Je félicite vivement les organisateurs de cette rencontre, Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin, l'Union africaine à travers le Centre de contrôle des vaccins CDC Africa et notre hôte, la France, pour leurs efforts au service de la santé publique. Par ma présence à ce forum, j'ai voulu exprimer mon attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe dans l'action de mon gouvernement. Ainsi, selon le rapport de l'UNICEF de 2021, 23 millions d'enfants n'avaient pas reçu les vaccins de base nécessaires à, à leur croissance normale au plus fort de cette crise sanitaire. La pandémie avait surtout mis en évidence les disparités structurelles qui existaient déjà entre pays développés et pays en développement en matière de vaccination. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde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 tel que le manque d'équipements et de médicaments, mais surtout de vaccins. donc président bu visite officielle ça xëy na visite officielle mais Gavi man mon sama problème. Mhm. Bill Gates man mon sama problème. ay programme vaccinal man mon sama problème euh, souveraineté vaccinale mon problème. parce que Gavi ak Big Pharma ak Bill Gates ak OMS ben kuréel la en train de dañu langoog seytaan yi ñooy is bu ci kaw suuf fi mu nekk. lu tax nga ne ñoo parce que dañu am une politique de dépopulation mondiale parce que science dafa commencer avancer. Mhm. légui on te parle de nanomédecine on te parle de médecine régénératrice. Mhm parce que ay nanoparticules yu biocompatible lañ lay dugal muy remplacer les cellules malades euh, euh, de réparer les cellules malades de remplacer les cellules mortes conséquence bi euh, dundu doomu aadama day gën a donc loolu day tax ñu ñu envisager un surpeuplement à terme balaa ñuy àgg foofu nag ñoom dañu ne dépeupler commencé à avoir une politique euh, de planning familial. Mhm. Euh, boo xoolee des structures qui de planning américains yi financé euh, jox lendemain ay ay def bras pour 6 ans. ay Norplan Plan, nous avons fait ñoo koy def ak mbaax goo ak euh, gisoon ngeen fi ñu yëkkati woon Dame Cheikh Omar Diagne lever le drapeau rouge bi ñuy bëgg a dugal ci enseignement euh, xale yu ndaw yi. Mm-hmm. ay affaire sexualité mais avant ça nous proposé woon benn vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Mm, l'utérus léegi ñu ni 12 <laughs> ans 9 ans ba 12 ans mais là, lañ leen di vacciner contre le cancer du col de l'utérus comme si ñoom dañu am activité sexuelle c'était très suspect